Tout Pape Fall Ngom di premier vice-président regroupement des forces de la récente de Saint-Louis. waaw euh, sama xalaat moy di rafetlu dogal bi muy lu ñu yàgg di xaar euh, ko trop mais nag du tee bu ñu demee ba président jël dogal yeewu ñu ci yeew bi mu aussi du tee dañuy jël suñu ay responsabilités yu mat sëkk gën a mesures de sécurité yi nga xamante ni état bi santaane woon bien avant. kon duñu def dal lu rafet lu dogal bi wax deug yalla ah way legui dal ñun ño doon kaas ni dañu wara liggey état jox nañu pour ñu liggey ñun tam nañ ci def fulla ak ju mat sekk ba nga xamni liñ doon ragal pour teyñu duñ ko gis ñun lool moy suñu suñu ambition yépp yi ñu am moy fexé liggey si condition yo xamni dañu fexé ba euh, liñu soxla ci fièvre bi bañ fi ex bañ a law si biir réew mi ñu fexé bu mu bañ a law ñun samonté lepp lo loo règlement yi la. ñu sàmmonte ak moom. bien sûr parce que loolu ñuy wax ñun dañ ko man parce que bu buñ ci àggee dinañ jël suñu ay matukaay daañ jël ñu ñuy recenser bépp passager bu fiy jaar ñu jël say contact jël sa numéro carte d'identité jël sa numéro permis beneen bi ci des dafay nekk loo xam ne lu ñuy arrangé lay doon. parce que bu fekkente ne oto bi mu ngi quitté ci biir gare routière bu saint ak nombre bi boo xam ne dakaar la jëm dafa ñuy noppal noppal chauffeur bi et puis day ëpp sécurité ci ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci gaar yi bokkoon na ci man sama xalaatu bopp bi ma jëkkoon a am ni ñu bàyyi oto yi ñu liggéey nañu bàyyi clients yi di taxawaal si booru tali bi ñu dugg ci garage yi. Mhm. di dem directement ci fi ñu jëm. yàkkale bañati am. Mhm. parce que bu yàkkale amatul dem directement Dakar am. Mhm. feebar bi incha allahu rabi waxuma la dina wàññeeku mais dina fi jóge ci nu mu gën gaawee.